wala booy rus yi rus jàkka ji sax wala ñu rus jàkka ji sax ñu rus jàkka a ji ñu rus jàkka ji ñu rus jàkka ji c'est normal lañu rus jàkka ji lii du yoon lii du dëgg du yoon lii du dëgg waruluma état waruluma kenn lii du yoon du dëgg du yoon waaw lekkuma xaalisu état mais lii du dëgg du du du Voilà, actuellement, c'est la maison de Matarba, ville Matarba. Xool kër Matarba li xool kër

Ah, lu ma cinq oto ma cinq tax na si kër Matar lu ma cinq oto ak groupe bi ak jumaa ji kër Matar ba waa sapeur pour sapeur ñëwul ba tey.